programme Fonds mondial dafa envoyé Sénégal une lettre pour wax que ni que dana ko jàppale ci Covid bi waaye jàppale bi dafa ñëw en complément avec le nfm maanaam li mu ko jàppale ci VIH ci paludisme ak ci tuberculose ak ci renforcement du système commun euh, sanitaire dafa ñëw anti enveloppe bu ëpp 10 millions d'euros ne moom la koy jàppale pour mu xeex Covid bi waaye ci biir xeex Covid bi yooyu yëpp duñu dem ex nihilo dañuy liggéey. ak programme VIH dañuy liggéey ak programme PALU dañuy liggéey ak programme TB ak renforcement du système communautaire ak du système sanitaire pour que lépp lu ñuy def it mu nekk dans un ensemble parce que boo xoolee sax euh, bu ñu bu ñu ko commencé di liggéey xaalis boobu ma leen wax Fonds mondial daf koy jox les programme programmes yi ñoom ñoo koy dérouler avec les partisans léegi nag euh, boo xoolee atelier tay bi dañu rassembler région de Diourbel région de Kaolack région de Fatick ak région de pour quoi région yooyu parce que dañu gis ni euh, Covid bi dafa am impact ci yenn région yi boo xoolee lu mel ni Dakar boo xoolee lu mel ni Thiès boo xoolee lu mel ni Diourbel eu égard aux statistiques yi nga xam ne moom la ñuy gis chaque jour donc région yu nga xam ne à fort impact de de Covid la ñu ne kon foofu la ñuy renforcer suñu stratégie foofu la ñuy renforcer suñu doole ba bu ëllëgee Covid bi peut-être on veut on le souhaite mu nekk un souvenir donc daal euh, illo waxtaan bi tey loolu yëpp la yaakaar nañu aussi que vraiment avec l'aide de Dieu yàlla mën nañ ci suturaal ba nga xam ni ndam gi ni bëgg dinañ ko ci am Covid bi bu ñuy ñëwee di ko xeex du lu nga xam ne dañ koy xeex seul parce que programme Fonds mondial bi ko joxee moom programme bu nga xam ne day xeex viage xeex pali xeex tuberculose ak di jàppale système santé communautaire ak système de santé bi. léegi Covid boobu comme da ngay gis ni boo xoolee dafa am impact ci VIH bi am impact ci palu bi maanaam trois programmes yi mais aussi dafa am impact sax ci structure sanitaire yi. si la Fonds mondial ne dafay renforcer tuuti xaalis bi ba nga xam ni en même temps ñuy xeex VIH di xeex palu mais en même temps ñu boole boolewaal ci. Covid bi nga xam ne dañuy dañuy lëkkale stratégie maanaam tey bu ñu doon jël benn stratégie dañuy jël stratégie bi nga xam ne ah haut impact de palu VIH TB nga xam ne lépp c'est intégré pour que ñu optimiser les ressources donc euh, Fonds mondial taxawaay boobu la taxaw ñun nag li ñuy li ñuy ñaan boobu ba léegi mooy que état jàpp ci ndax tamit comme on le dit Euh, bala ngay jàng euh, olof dana koy wax ne ku ku jàngaani boobu fekk sa dëkk dafa tëggul te comme yàlla dafa def nous avons un état nous avons un secteur privé am na ñu collectivité local donc defe naa ne ñooñu war nañu mën a jàpp ci santé bi ba nga xam ne bala ñuy jéggaani dara ñoom seen loxo dana ci jëkk dugg te loolu la ñuy appeler l'état mu jàpp ci société jàppale société civile bi collectivité locale bi jàppale na ko pour la pérennisation parce que partenaires yi aussi dañu am seen objectif bu seen objectif jeexee rek dañuy dem donc alors que ñun état bi l' état il continue fii ba kii dañuy nekk ak état état bi war nañu gestu war a gestu société civile bu nekk ci xeexum jàngoro yi ba nga xam ne société civile boobu dana ko dëgëral dooleel ko ba fu société bi civile bi dem dinañ ko déglu ba nga xam ne lépp lu ñu bëgg ci yenn stratégie ak yenn doxalin yi yàlla mën nañ ci defal sutura parce que fu baatu état mënul yegg kat société civile mën na fa yegg donc defe naa ne boo xoolee fond de reconstitution bu bërki dem rek à Lyon société civile daf ci jouer un rôle très déterminant tey suñu amee reconstitution fonds yi nga xam ni Allemagne ak ñoom France ak ñoom Angleterre dugal nañ ci somme bu am doole c'est parce que c'est le cri du cœur de la société civile moo indi loolu yëpp donc kon état bu am ne aussi état mënu ko wax société civile rek wax donc foofu daal ñu ngi ñaan dimbalu état ndimbalu secteur privé ak ndimbalu collectivité locale ba nga xam ne bu ëllëgee santé bi vraiment dinañ ko jël à bras le corps ba li ñuy gis ak jànk yi ñuy jànkonteel yépp yàlla mën na ci def sutura incha allah. nekk nii dañu nekk si benn dynamique dynamique bu nga xam ne macha allah tous les acteurs sont mobilisés. aussi bien la société civile le secteur privé que le secteur public macha allah ñi nga xam ne ñoo sekk mbir bi yëpp ils sont tous sont tous aussi engagés. à ce que le 31 mai incha allah ñu déposé ko te yaakaar nañ ko bu ñu amee ndimbalu suñu borom yàlla mën na def dinañ ko déposé si kattanam.